amicale di kuréel gi ëmb euh, ña nekk ca université Cheikh Anta Diop ñoom nag raxasu nañu ba set ci fitna gi amoon foofa euh, ca université ba xamle nañu daal bu dee am na kuñ ci joxar bi ak di wax ni moom moo ko amal kon nañu jàpp ni étudiants yi bokk ci faculté euh, des lettres ñooñee la ñu ci mën a tuumaal collectif bi nag xamle ni ñoom ànd nañu ci ñu yeesal bu baax bâtiment ya nekk foofa Euh, ca université ba ak nu ko mën a defaree euh, falamaan Mané moo nekkoon ki amee woon seen kàddu Cheikh Abdou Khadre Mbacké Seck la dénk yi kàddu li xew démb mooy gis nañ benn groupe étudiant bu jóg di taal di kaas dee seen boppu collectif des amicales ou collectif des étudiants mu nekk loo xam ne njuumte bu mag la ñu fi taxaw muy coordination école institut muy waa faculté de médecine muy waa FASEC muy waa FASTEF e ñun ñoo fi am amicale yoo xam ne renouvelé nañ ko déposer suñu PV au niveau du COUD ak fépp fu ko war a mën a déposer au niveau du rectorat ñun actuellement ñun ñooy ñun ñooy interlocuteur autorité jël nañ nag suñu décision décision bi moo doon campus dafa war a am na nag groupe étudiant boo xam ne dañoo bokk ci ñoo xam ne amuñu amicale daaw amoon nañ amicale ren amuñu amical gis bi lenn rek la mooy daaw quota bu ñu amoon xam nañ ne ren comme amuñ amical mënuñoo défendre quota boobu lenn la ñuy def parce que ñoom xam nañ ni jàllatuñ mu bokkuñ si ñu war loger luñ bëgg mooy lan mooy des seen néeg benn groupe encore une fois benn groupe bu faculté des lettres et sciences humaines ñoom ñoo jog di terroriser université Demba lu ñu gis genre agression. benn groupe bu faculté des lettres ak sciences humaines la ñu tuumal ni lu jiin njàkk ñooy njàkk ci fitna gaamoon keroog ca Cheikh Anta Diop.